Euh, waxtaan nan nag ci lépp lu jëm ci ay mesures accompagnement li nga xam ne fonds bi nga xam ne président jël na ko euh, euh, ndogal bu mu jël pour taxawal benn fonds loolu ñuy naan fonds de solidarité ak riposte boo xam ne contre effet coronavirus effet économique ak effet sociaux pour que ñu wàññi conséquences yi nga xam ne conséquences négatives yi nga xam ne war na ko mën a am ci entreprise ak population yi li ma bëggoon leeral rek mooy fonds boobu bokkul ak li nga xam ne mooy euh, budget bi gouvernement bi dégagé pour secteur de la santé war naa ko 64 milliards yi du pour riposte économique loolu riposte sanitaire bi la euh, loolu mooy li nga xam ne xayma nan ko ne suñ ko génnewee épidémie bi dinañ ko mun a euh, vraiment de ci jéego yu reuy pour daaneel ko lool le ministère de la santé nat ne lool la wara mëna soxla lool nak état bi ak partenaire yi euh, dinañ ci jóg euh, financer lool loolu amun ci ben tiitange loolu 64 milliards donc riposte économique riposte sanitaire la bokul ak fonds de solidarité bi nga xamné nak ñu ngi ci liggéey wante xamagunu nattagunu montant pour xam ñaata la comme ni ma ko waxee woon démb secteur privé d'accord na ñoom dinañ ci contribuer ci fonds boobu partenaire au développement tam d'accord n'a dinañ ci contribuer ndaxte am na ñu mas gis tey suba état bi tam dina ci contribuer ak yeneen bonne volonté loolu nag suñ ci tollee ba ñu xam ñaata la xam fonctionnement bi xam ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a jàppale mooy entreprise yi nga xam ne ñoo nekk en difficulté ñoo am ay tolof-tolof wala ay ménage wala ay population wala ay ñu doon liggéey mënutul liggéey ñi nga xam dañ doon daan seen doole te léegi ñu affecté leen loolu lépp fond boobu moom moo ko war a toppatoo moom moo ko war a gérer loolu nag ñu ngi ciy liggéey suñ xamee ñaata la dinañ ko wax parce que loolu foog ñu def ay enquête ba xam ñan la touché ba xam aussi partenaires yi ak état bi ak ñëpp ak secteur privé ñaata lañ ci mun dugal pour que ñu mun leen wax loolu ñaata la